waaw li ko waral coupure bi mooy benn lakk-lakk bu amoon ci poste courant bi ñu tuddee Coona Coona mi ngi nekk poste bu nekk ci booy génn Thiès mais bu am importance la aussi ci système mu Sénélec parce que dafa nekk poste boo xam ni bu ñu ko liggéeyee ba pare au niveau de au niveau de Dakar dañ koy indi ci post yi pour séddale ko ci yeneen gox-goxaat yi. donc poste bi loolu mooy njëriñam moo tax mu am importance donc euh, bi mu lakk bi amee aussi indi na ay dégâts yu bëri ci réseau bi mais indi na dégâts ba déclenché indi blackout ci système bi yëpp xamaguñu ko nag ñu ngi koy wër eh, li ñu njëkk def mooy balaa ñuy xool lan moo ko waral mooy fay ko ba pare génne ko ci réseau bi ñi nga xam ni lakk bi àggul ci ñoom ñu jox leen courant bon bu ñu paree doog xool lan moo ko indi pour que parce que saa bu ñu ko defulee du ëllëg bu mën na amaat donc on va regarder après ce qui a ne li ko indi pour que mu bañ a voilà. waaw mais yooyu yëpp aussi euh, ñi ngi koy saytu pour l'instant parce que gis nañu déjà euh, yi yàqu fii am na yu yàqu yoo xam ne gisaguñ ko parce que la preuve sànq bi ñu defee benn remise wax nañ am na ay fii ñu dagg mais côté euh, prison donc mooy yoo xam ne gisaguñu ko woon donc mais yi ñu gis yëpp ñu ngi koy saytu ñu ngi koy réparé bu ñu paree nag nañu mën a évaluer li yàqu yëpp ñaata la yi yàqu yi ñu gis fii ci lakk-lakk bi xam nañu ko mais yeneen yi nga xam ne gisaguñu ko après lañ koy mën a xool. gannaaw waaw waaw am na am na am na matériel yu yàqu dégg nañ ko bon mais comme niñ ko xamee mat Senelec moom dafa jëloon disposition yi pour que bu yooyu amee. bu ko client bi annoncé rek alors en accord ak suñu ay assurance ñu jël ko en charge bu fekkee ni remboursement bi war nañu remboursé ko ñu remboursé ko. waaw ñu ngi ci normalement waroon na mën a dellu si fi ñu toll nii mais dañu bëgg sécuriser parce que dañu bañ delloo ko léegi mu demaat. moo tax il faut que ñu saytuwaat vérifier bu nekk doog ci delloo parce que mën nañ ko delloo léegi bu fekkee ne am na yoo xam ne gisoo ko day indiwaat yeneen jéeye. moo tax balaa ñuy delloowaat léegi dañuy saytu point bu nekk ba mu wóor ni fii bu ñu fi jàllalee dina baax ñu dog ko ñu doog ko dugal mais loolu am na équipe boo xam ne jóge na dakaar mi ngi fi mi ngi koy xool bu paree rek après nañ ko remettre. Euh, lu ci ëpp Dakar la parce que réseau interconnecté la te dakaar la client yi ëppee mais bien sûr ak euh, yi gox-goxaat yi ñu wër yëpp bon mais système bi c'est maîtrisé ba remettre nañ ñi si des ñëpp. ñi nga xam ne mënuñu leen remettre mooy fi nga xam ne dafa am yàqu-yàqu mais yi nga xam ne amul yàqu-yàqu yi remettre nañ ko bu baax woote nañu depuis bi affaire bi amee ba léegi d'ailleurs préfet maak moom ñoo fi nekkoon depuis bi affaire bi amee directeur général aussi woo na ma waxtaan nañ ci e maa ngi ko doon rendre compte chaque jour chaque heure euh, le ministre aussi m'a appelé c'est en crise la situation ba wax nañ ko li ci xew yëpp ak li ñu ci def yëpp ak li ñu ciy li ñu ciy war a def mi ngi koy suivre de très près te nee na bu ñu paree aussi nañ ko ci defar rapport bi voilà Djibril Mbaye délégué régional centre est